divergence te divergence bi du du du du lu jóge ci suñu ay ñun ni ñu mel ak suñu ay principe jógewul ci benn divergence ci ay principe parce que suñu principe jóguñu ci dafa jàpp